man léegi daal si pukkiatu ma kii laa bëgg a wax. Mhm. balaa maa commencé. waaw xam nga Birahim nee na am na loo xam ne danga koy def ak loo xam ne doo ko def. Mhm. mais dafa am dafa am ay Birahim. Mhm. dafa am ay am ay action de trop. am ay propos de trop. Ablaye Wade bu dee en matière de réalisation gis nga président Macky Sall. réalisation yi mu def. xam nga la moo tax nekkul kenn ci mbetteel dañ koo dundoon ci jamonoy Ablaye Wade mooy ay autoroute a péage ak ay pont. ay lu pont ba gudd gudd Foundiougne dégg naa mu ngi fa jëm bu yeboo mu gudd toll ni fii ba New York nit ñi xas nañoo taamu pont. Mm-hmm. baax na de moom. Mm-hmm. baax na autoroute à péage bi gis nga ko dinañ ko fay lu tolloo fanweeri at wala lu ko jege. Mm-hmm. <laughs> dëgg loolu dëgg. Sénégal ba fii ñuy wax lan la waxoon ne benn somme symbolique gu six mille francs la nasaraan yi joxe ci suñu suuf si ñu leen xalal yëpp ñu koy exploité presque.

di def di n'importe quoi ne ñin dañuy def tool man maa ne woon te du deux mandats moo fii ne waa léegi maa waxoon waxet kooku bu la ko waxee nee ko président nee na maa waxoon waxet xam nga ma la. Hmm. déggoo ma de maanaam mbiru jaay doole yoo xam ni yooyu la sénégalais yi ci boppam di di maar yooyu la ñuy sanctionné arrogance gi nekk ci yenn ci waa APR yi taxaw ne léegi ne man ay dossier yoo xam ne nii bu ma ko bu ma teggi woon sama loxo tey musiba mais maa ci teg sama conc waa lu tax conc ba tegu ko ci dossier wu Karim hmm. lu tax teg ko ci dossier ci dossier xalifa Khalifa Sonko mi ñu caañaañal lu tax tegul conc wala mu teg oom mais amul kenn ku mësa ànd ak Macky Sall ku mës a inquiété wu ci lu jëm ci wàllum gestion wu dëkk année cour des comptes les corps de contrôle de l' état génnee ay rapport teg Macky conc mujj fenn nga ñëw nag ci diggéey man maa leen ne dama koy jëlee sept ans yóbbu ko cinq ans furaas maa leen ne cent mille emplois cinq cent mille emplois froisse maa leen ne lii yi du mujj fenn loolu nag à force de le faire di ko répété di ko répété di ko répété ko répété Sénégalais yi dañuy dem ba xool loo leen defaral duñ ko duñ ko gis mhm. nekkal Guinguinéo wala Saint-Louis wala Guédiawaye wala Pikine doon fa Messi di def lu ne mais boo génnee jàpp nit ñi di leen saaga ak di leen doon ba xam ay lamp yoo taal wala réalisation yoo fa def dina feeñ du feeñ loolu loolu loolu mom moy bilan suñu chef d'état yi dañuy xoyé li ba paré lan réalisation lan moy titre bias ils sont payés pour ça loolu moy deug mm-hmm. yow on te met dans de très bonnes conditions auto bi ngay dawal ci bopam plus de 50 millions lay jar jangale kat ngi fii nii la lay wax ni toppee ay accordu 2014 ba légui defoko ko wutal le policier teg pistolet ci wet gi fay ko do fay courant do fay ndox jël 2 millions jox ko menuisier bi mu jaay la chambre à coucher ba menuisier bi génne ni nga ne lu nan lal bi yassine si te damaa ko defar te yow dañ la fay. ils sont payés pour travailler. Mhm. réalisation est par force là ils ont été mis dans de très bonnes conditions. Mhm. conditions yoy nak en retour mom lañ wara war a askan bi ñu ne le wiiw lan le deuxième mandat. wala wala ay bon réalisation ay bon aussi yu suñu sët di fay. waaw fii ba fanweeri at. fanweeri ba nga rey nit ñi nan ay euh, réalisation pendant 10 ans. vous êtes payé pour sax il faut travailler loolu mooy dëgg te dax ñi nga xam ne ay tojaange la ñuy def fii lu ne wee ñëwee ngaaral gayen ay passeport diplomatique fii faux billet fële def ay tojaange détournement sàcc yu dul jeex te mujjul fenn fu mujjee fan la mujjee ana gars yi ñoom ñoom ñibbi nañ seen kër mais ku bokk ci aussi opposition bu ñu fekkee ci yow cinq cent francs faux tey nga dee